sante bu baax a baax ci topp bi ngeen di topp Dakar Net a leen ci jaajëfal bu baax a baax dal leen jàmm ci seen magazine actu de la semaine actu de la semaine nag dañu koy ubbee ak Guy Marius Sagna Guy Marius Sagna xam ngeen ni yoon daf ko téewoon ñetti weer ci kaso bi bu mu génnee dafa dem fi nga xamante moom mooy Ziguinchor bi mu demee Ziguinchor dafa dem ci dëkk bu ñu naan muy village natalam bi mu demee ci dëkk bu ñu naan Etomé jigéen dëkk dañu ko jàpp yóbbu ko fi nga xamante ni moom mooy bois sacré ba sang ko bu baax a baax blende ko missingement takkal ko ay gàllaaj ah, bi ñu paree ñoom seen porte parole bi jigéen ñi ah, nee na Guy mari Sagna seen doom la du ñu ko seetaan benn yoon te bépp nit boo xamante ni mu ngi koy fexeel wala bépp nit boo xamante ni dafa bëgg pour Guy mari Sagna arrêté wax ji nee na ñoom dinañ ko digaale ak ñoom Guy mari Sagna tamit bi mu paree si loolu dafa dellu ci maninam li ñu ko xamee ah, Guy Marius Sagna ni bi mu jugee Dakar di dem Ziguinchor bi mu wàccee ci ay aéroport bi amul benn visite amul benn appareil boo xamante ni mi ngi fa pour saytu wér-gu-yaramu nit ñi ak feebar bi nga xamante ni moom moo lëmbee àddina muy coronavirus. mi ngi noonu Guy mari Sagna nag ah, bi mu waxee loolu ndax nee na avion bi ci boppam am na ay ñoo xamante ne ay étranger lañ te defuñu leen benn ah, visite pour xool seen yaram. bu ñu jugee ci Guy Marius Sagna dañuy dem ci nga xamante ni moom mooy Thiès ndax xam ngeen ni dafa am ah, jigéen soxna bu ñu naan Marème Diagne Marème Diagne xam ngeen ni assan gay moom moo yóbbu bakkanam histoire bi nag ni mu demee ñu bu ñu toppee ki nga xamante ni moom mooy l'observateur Assane dafa jugee Maroc. daf doon génn moom daanaka juróomi at def nañ ko ñoom ñaar bi mu nekkee Maroc dégg ni may nañ ko beneen góor loolu nag mënu ko digérer mu commencé di ko envoyé ay vocal di ko wax ni ko te daanaka wax sax ni ko bis boo demee si beneen góor damay jël sa bakkan ñu yaakaar ni nag ah, Marème jàpp ni loolu moom ay caaxaan la bi Assane ñëwee dafa dem fi nga xamante ni mooy ko ñoom Marème bu mu demee ko ñoom Marème commencé di wax ak Marème ni Marème na ko fay 3 millions 400 mille 3 millions 400 nag ci la Marème woo jëkkër ji bi Marème woo jëkkër ji jëkkër ji mi ngi nekk fi nga xamante ni moom mooy Espagne jëkkër ji ni passe leen ma ko téléphone bi jëkkër ji euh, waxeek ak ni Assane euh, bu dee dangaa sama jabar daf laa yoral xaalis indil ma ay preuve yu wane ni yow daf laa yoral xaalis boo ma indilee preuve yi lépp loo xamante ni daf la ko yoral man dinaa la ko fay ci la Assane demee bi Assane demee nag continuer di vocal xale bu jigéen bi loolu yamu ci ah, jëkkër ji nga xamante ni moom mooy jëkkëru Marème nii dem leen ngeen porte plainte Marème ànd ak yaayam dem porte plainte bi ñu porte plainte ah, ki nga xamante ni moom mooy police wu ah, Thiès woo Assane bi ñu woowee Assane nag wax ak moom Assane suba ba ngoon ñuy def enquête bi ci moom di wax ak moom di ko laaj Assane waxul dara lu leer si lañ ko waxee ni ko yow demal waaye nag bul waxateeg xale bu jigéen te bul jege sax këram Assane ni waaw bi ñu ci tegee li nga xamante ni moom mooy la 8 mars bi 14 heures jotee ci la Assane àndeek ak benn paa an dem ni day baalu ndax euh, moom jullit la expliqué mook paa bi bi mu demee bi paa bi génnee Assane dafa yoxasu tëb fenêtre bi nga xamante ni mooy fenêtre mareem ñëw jamate ko li nga xamante ne ay paaka maanaam dab daaxoo ay paaka di coups la ko jam bi mu ko jamee ci la daw di génn kon bi bi mu dawee di génn koñ bi dañeen teg benn waay waa ji ni ko yow lan la mënu ko damaa rey nit fekk loxo baa ngi takk deret ak paaka bi moog waa ji jàppante mu nar a jamaat waajooju bi waajooju tamit riposté beneen waay ñëw dox ko ginnaaw ñu euh, mën naan neutraliser ko jàpp ko yóbbu ko fi nga xamante ni moom mooy police Assane nag bi mu demee police dani moom femme bi daf ko lekk xaalisam bu baree bari te da ko bëggoon te daanaka wax ni ko mënul di gérer mu ànd ak beneen góor euh, bu ñu jugee foofu tamit euh, dañuy continuer ba léegi actu de la semaine dem fi nga xamante ni moom mooy monsieur Diop Isaac problème moom moom ak Dieyna moom Dieyna bu seen petit gàlle euh, woowoon moom tamit si enquête bi moom ak frère am kii ki leen bàyyi Diop nag dañu ko téye ci dernière information yi nga xamante ni moom la ñu am mooy Diop dañuy enquêteurs yi moom dafa télé maanaam moom du góor ah bi ñu bi mu waxee loolu tamit te nee na ki nga xamante ni moom mooy ex femme maanaam jabaram bi nga xamante ni moom la divorcé moom moo nekk si ginnaaw lii yëpp léegi nag Dieyna euh, si boppam enquêteurs yi bàyyi nañ ko dem waaye seen xel dalul ci moom ndax dañoo gis ni Dieyna këyitam mi ngi ko wutee Euh, maanaam 2011 ñuy xalaat ni est-ce que moom deful deful jugement euh, enquêteurs yi nag ñoom bëgg nañ yabal ay ndaw fi nga xamante ni moom mooy région de Kolda pour xool foofu ndax Dieyna li muy wax noonu moo am wala amul. moom euh, bi nga xamante ni euh, ñëpp xam nañ ko muy Abiba di chanteuse Abiba euh, moom tamit dagg ca langue nii moom dafay porte plainte te nee na tax muy porte plainte mooy dafay recevoir ay audio ak ay vidéo yoo xamante ni dafay am ay menaces de mort yoo xamante ni dañ naan ko dañ lay rey ak yoo xamante ni dañ naan ko dañuy yàq sa carrière yàq sa li nga xamante ni mooy sa carrière yàq sa lépp loo xamante ni moom nga bëgg a def yow ak sa papa Euh, ñu jàll di leen jaajëfal bu baax a baax ci topp bi ngeen ñi topp di leen jox rendez-vous ci beneen euh, magazine actu de la semaine